internet d'Africa Channel fii ci biir Grand Théâtre ci des show de bu Paco Brise ànd ceeg Pape Sidi le grand animateur du top du Sénégal Pape Sidi ñu ngi lay nuyu. maa la fay. tey ñu la doon laaj sa relation ak Paco Brise. Paco Brise amuñ benn relation ku réew la non dama lay wax sama gars la c'est un jeune entrepreneur. Déjà dans le hip-hop, il faut être un rappeur et il est un rappeur, il faut avoir du talent, il a du talent, il faut être un gars qui entreprend, il entreprend. Dieu sait que moi quand j'ai vu Paco Briz s'attaquer au théâtre national Daniel Sorano dama ne ko booy est-ce que da ngay tux omo parce que yow sax produit mu génne bracelet nangu na si Elzo Jam donc la ko gisee initiative bi nice donc c'est un grand aujourd'hui euh, et qui à tous à lui seul te moom moo créé benn genre Euh, espace boobu créé ba mu am si équipe bi donc man nit bu nekkee si luy doxal hip hop relation bi may am ak yow mooy relation fraternelle relation amicale relation professionnelle sama relation ak Paco mooy bu nappee jën jox ma moo tax sama kër gëj naa lekk ceebu jën parce que du napp. si di nuyu naa la. maa lay fay fii. yaa ngi ci jàmm bu baax. sa tubéy bi rouge na nga waroon <laughs> mu jox ko tubéy bi ah, non t'inquiète loolu laay def. <laughs> waa Pape Sidi tey ñu gis la fii ci Grand Théâtre Paco Briz nekk xale boo xamante ne ndaanaan la ñu ngi koy dégg fu ne ñu koy déglu fu ne ci ci ci adduna bi on peut dire ñëw fi nga xam ne moo di grand théâtre jaaroon Sorano mu tëgg grand théâtre ñëpp ne ah Paco du ko feesal mais tey gis nga public bi nit ñi et tout ça moo bëggoon xam yow fan nga séntu Paco en fait. xam naa seen booru ko yooyu dina baax quoi <laughs> te duggaguma ci salle bi nag xamaguma nu mu demee mais bon j'ai confiance en Paco Brice te quand on est jeune qu'on a du talent je viens de le dire tout à l'heure di organiser di jël ay initiative di organiser sa bopp je me dis que dara jomb la quoi fi ñu lay séntu du fudul fa ndam ne fi ñu lay séntu du fudul fii tekki teral sa mbokk say waajur nekk donc y a pas photo entre Paco Brise les autres donc c'est un grand artiste aujourd'hui Paco Brise est devenu une réalité boo waxee Paco Brise ci hip-hop bi tout le monde le connaît maintenant le le l'étape suivante pour pako Brise c'est de fair de telle sorte que boo waxee euh, Youssou Ndour Sénégalais yëpp duñu wax ah lu muy def dañ naan Youssou Ndour xam nga boo waxee kenn wax loolu. donc loolu moom mooy liggéey bi mu war a def te je pense que il est dans les très très bonnes euh, pour le faire. Euh, émission bi fii lay jeexee. merci beaucoup merci beaucoup Pape Sidi. sama mot de la fin fin.